quand man j'aime bien euh, nga expliqué nga expliqué ma ko nii tu koy fee mën a comprendre waa ji jox ma ko ma ne ko amul problème ma ce que mën nga ma bindal sa numéro téléphone ci ginnaaw encore une fois waa fan amitié point e amitié point e fan côté boobu noonu yëpp quatre-vingt-dix-neuf pour cent ñu fa dëkk ñëpp Pastef nañu ñoom ñoo gën a actif ci ñi may gis ñuy liggéey Pastef yëpp waa fan amitié point e <laughs> donc waa ji bindal ma numéro téléphone Amadou Thiam bindal ma numéro bi ci suuf ma àgg sama kër reer macha allah ba pare bàyyi vingt et vingt heures moo téléphone salaamaaleykum Amadou na nga def mu ne ma ça va ne ko waaw man la diw quoi nga dajaloon sànq mu ma kan ñu ma dajal sànq bëri na de ma ne ko mais mooy gaan noonu rek doon la poser question yi quoi mu ne waaw xamul ne man la parce que comme je dis même du ma ko yor sax man je euh, mu ne ma ah ne ko ok leer naa projet bi neex na ma trop mais man dama bëgg dama bëgg contribuer quoi dama bëgg jàpp ci projet bi quoi léegi nan laay def. mun ne ma non loolu yomb na mën ngay def ay cotisations yi simple comme aussi lu gënoon nag mooy parti bi dañoo soxla nit donc doo mënoon nag ñëw jënd carte membre xam nga loolu dina gën a baax du ko defee ñun dañ gën a mën a agrandir suñu suñu liggéey fii ci Fann Amitié point E du ko defee aussi du fekkee am nga contribution yooyu yëpp dañ ko def loolu moo ma gënoon a poussé la lendemain man kañ ngeen am réunion mu ne ma dans trois jours ma ne ko wax ma kër gi fan la mu tegtal ma kër gi fan la soriwul woon sama kër. ma dawal graare tranquillement dugg toog ci ginnaaw déglu leen ay nit ñu ay tubaab Pastef ay civilisé ay nit ñu nite nday wax kenn du la dagg waxtaan bu bu civilisé ay gars yu discipliné wallahi ba pare def sama contribution joxe ñu jox ma carte membre ma ma def li may def après après compte loolu boobu laa commencé intéressé wu réellement engagé wu ci projet bi loolu ma leen di wax nii ci tey war na def au moins du ma juumu la ah, war na def au moins huit ans waaw parce que c'était un période bu ñuy préparer élection yi la ça doit faire maintenant oui ça doit faire au moins huit ans boobu la donc ça je vous explique ça pour euh, pour pour vous faire comprendre que duma ci lenn ah, duma ci lenn te tey ñi nga xamante ne dañ ci ñàkk seen bakkan ñooñu kenn mënul tollook ñoom degré de degré d'investissement ci projet bi ñi ci ñàkk seen cër ñàkk seen liggéey kenn mënul tollook ñoom ñi ci dugg kaso ay at comme ay Fadilou Keita Sonko ñoom ñooñu ñëpp plus de mille huit cent personnes ñu tëj ci kaso bi ñooñu kenn mënul tollook ñoom mais xeex bi ñëpp ci am solo moo tax ñun ñi nga xamante ne tey ñu ngi suñu soi-disant zone de confort ah, la parti ah, ñun ñëpp nañu nañu continuer di di di ah, di nañu continuer di ci xeex bi Seydina Ousmane Faye maa ngi lay ziar Cheikh Tidiane Seck maa ngi lay ziar broda vive le patriotisme Cheikh Tidiane Seck waaw waaw amul baay mami mami mami ndi waaw système maa ngi lay ziar ah, Yaya Nabi yow it maa ngi référence non man du ma